am mbégte lool ñëw accomplir sama devoir citoyen mooy ñëw woote ñu ñëw nag def ko si jàmm di ñaan sénégalais yi fépp fu ñu nekk si Sénégal muy taw walla muy naaj naaj bu tar walla sax muy ngelaw ndax hivernage lañu nekk bu leen dara tayalloo ba duñu dem accomplir seen devoir civique mooy dem wote ji gis nañ ne nekk centre de vote bi heure bii d'habitude laay voté heure bi dooroon na gën a bëri nit ni su dee nag taux de participation bi dafa faible lu muy tekki mooy peut-être ñun homme politique yi expliquer wuñ suffisamment les enjeux parce que il faut ñu xam ne fii ñu jëm yenn année yi ñu jëm muy année bii élection yi ak élection yii di ñëw am na page yu ñu war a tourner définitivement te Sénégal moo si jëriñu askan bi moo si war a jëriñu waaye pour loolu am il faut que le peuple s'exprime parce que nous sommes en démocratie expression peuple nag vote la vote su jotee ginnaaw ba nga werantee si grand place yi ginnaaw ba nga xuloo si internet bi jëlal sa carte nga ñëw voter massivement pour changement am si réew mi ba ma nag fekk naa fi suñu suñu euh, man mën naa ko wax oncle suñu ñu jaay muy mbay Ndiaye nga xam ne moom ak sama yaay ñoo bokkoon classe ma gëj ko gis nag lool mën naa wax sax daanaka gisatuma ko ñu daje fi si vraiment relation cordiale yi ma war am ak li ma war en tant que neveu ma xaar ba mu wax ak presse bi ma ñëw nuyu ko sargal ko ndax ñu som en démocratie ku si ne si ñun mun nga def sa campagne waaye su wote jotee nañu bàyyi nag population yi ñu exprimer wu ñu dem nag toog xool lan mooy doon résultat bi si biir waxam ak peut-être si yéeneem wax na ne ah moom de su sañoon ñu ñëw fekk si ko te wax dëgg yàlla euh, euh, wax na daal wax ju rafet comme nu ko sénégalais di waxee waaw comme nag wax jooju ñëpp xam nañ ne wax ju rafet la waaye nag dañoo nekk politique te politique moom wax la laaj ku wax ñu tontu donte suñu ñu jaay la ñu koy wax rek ne ko nguur goo xam ne ñaari at moo ko si dese bu ñu xalaat di woo kenn dañu xalaat defar seeni bagage pour dem parce que président Macky Sall amul droit troisième mandat moom mu ngi si pouvoir bi ñun ñu ngi si opposition bi ñu ngi koy yéene jàmm. nañuy mu ngi ñuy yéene jàmm xam naa ko waaye dañu ko yéene si opposition bi ndax combat boobu la ñu choisir depuis ba ñuy def politique ba léegi depuis 2013 ñu ngi si opposition bi di xeex tey aar Sénégal yitteem mooy fexe ba assemblée nationale mu daal di fay toog am fa majorité change assemblée nationale nu muy doxee et par ricochet bien entendu marche réew mi nu muy doxee ñu delloo ko ci beneen yoon boo xam ne dina amal njëriñ askan bi moo tax ñuy wax sénégalais yi ñu ngi leen di wax ñu ga ñu ñu génn ñu génn massivement dem woote te tànneef bi tamit nañu xam ne assemblée nationale bâtiment ba mu ngi fa mosu faa jóge loi ya suñ si am luñ siy dindi it parce que ñun proposé nañ ko am na lu fa nekk daanaka mun nañu wax ne bonul ndax député bi protégé nañ ko jox nañ ko ay moyens assemblée nationale am na ay prérogatives parce que nag pouvoir la bu wute ak l'exécutif bu wute ak le judiciaire assemblée nationale am na mën-mën si askan bi lu tax boobu ba léegi assemblée nationale doxul c'est parce que ñi fa nekk di wëyal amuñu capacité pour mën a wëyal ndax dafay laaj courage dafay laaj éthique dafay laaj expérience loolu nag il faut ngeen xam ñan ngeen war a tànn pour ñu dem teewaleen assemblée nationale pour que suba ñu bañ leen wax na ne diw bañ ko falee dem na wuyu ji président ndax xam ngeen ñuy wuyu ak ñu dul wuyu waaye ñu dul wuyu nag ñooñu lañuy dàq gën a gën a mën a sosal nag ndax dëkk bi daa bëri ay soskat léegi xam ngeen ñañ ñoo am compétence yi bañ fa nekkee ñu fa def ñëpp gis ko teg ko seen bët te xam ne suñu leen waxee dinañ defaat dinañ defaat donc def leen attention ci choix bi parce que éternel recommencement bi moom mënul continuer nga tànn tey tànnaat toujours la même chose war nga mën a taxaw nag xool moo tax ñuy insister wax naa ko léegi ci tàmbali bi li ma gis fii dalul sama xel ndax li ma fi fekk ñëw sama bureau voté directement gis yeneen biro yoo xam ne kenn taxawu fa loolu dama ne sénégalais yi su dee démb guddi gi tamit am nañu nekkoon bëgg parce que léegi internet bi ñu bëri dañuy guddee tëdd gaaw leen ngeen yeewu ngeen ñëw ngeen voté massivement jërëjëf. Merci beaucoup. Je voudrais rendre grâce à Dieu d'être venu aujourd'hui accomplir un devoir civique. Et nous espérons que partout au Sénégal, les Sénégalais auront le réflexe d'aller accomplir leur devoir civique. Nous sommes au, dans notre centre de vote, nous constatons qu'il n'y a pas beaucoup d'électeurs. Nous ne souhaiterons pas qu'il y ait un taux de participation faible parce que le, les enjeux sont énormes. Nous avons besoin que définitivement les Sénégalais choisissent une Assemblée nationale qui puisse véritablement maintenir les acquis, mais surtout jouer le rôle qu'elle doit jouer à travers ses députés et en représentant convenablement le peuple sénégalais. Nous souhaitons que les Sénégalais sortent massivement, qu'ils votent en paix massivement qu'ils ignorent même parfois les intempéries parce qu'il pleut dans certaines localités. Il faut aller voter, il faut aller voter, il faut aller voter. Je suis venu, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré sur ce centre un leader de Benno Bokuyakar, à savoir le ministre Mbaye avant d'aller voter, gentiment, je suis parti le saluer. Le ministre Mbaye Ndiaye est un promotionnaire à ma maman. C'est vrai que ça fait très très longtemps que je n'ai pas de ses nouvelles. Il a eu des propos d'un oncle envers son neveu. Mais comme nous sommes dans un milieu politique, il est toujours important d'apporter des précisions. C'est mon oncle, je l'accepte. Je suis son neveu, je l'accepte. Mais il est de Benno Bokuyakar, je suis de Art Sénégal. Nous souhaitons avoir la majorité à l'Assemblée nationale, comme eux aussi souhaitent avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Et les perspectives que nous avons au niveau de Art Sénégal, c'est qu'il y ait une alternance au Sénégal. les perspectives que nous avons au niveau de Art Sénégal, c'est que dans deux ans, le président Macky Sall ne sera plus président de la République du Sénégal parce qu'il n'a pas droit à un troisième mandat. Donc on ne peut pas, bien entendu, euh, avoir en perspective de collaborer avec quelqu'un qui doit partir. Et notre constance dans l'opposition est connue de tous. Donc je le remercie beaucoup pour sa main tendue. sa courtoisie, mais qui reste à Benno Bokoyakar et qui nous laisse rester dans Art Sénégal et dans l'opposition. Je voudrais aussi remercier tous ceux et celles qui nous ont manifesté leur sympathie, leur compagnonnage durant presque trois à 4 mois, parce que vous savez, Art Sénégal a fait une, une campagne et une campagne électorale. C'est plusieurs jours sur le terrain. Nous avons rencontré des Sénégalais un peu partout. Nous leur demandons tous, autant qu'ils sont, d'accomplir leur devoir civique. Parce que tout ce qui s'est passé durant les campagnes, les coalitions se sont déployées. Il y a eu énormément de rencontres, il y a eu des spectacles, il y a eu de l'amusement même parfois. Mais aujourd'hui, c'est le jour jui Tout ce qui a été fait depuis lors, c'est pour que le bon choix soit fait ce 31 juillet. Donc nous leur demandons encore une fois et nous insistons quoi, de bon sortir choix, massivement. Sénégal, Sénégal Mais vous savez que nous sommes plus en campagne. Je ne peux pas le dire. mais si, si, si je le dis et que vous le sortez, et vous me le, si vous me le demandez, je vais le dire, c'est bien entendu Art Sénégal. Mais comme nous ne sommes pas en campagne, je ne voulais pas aller dans ce sens. Mais comme je l'ai dit et je le répète encore une fois, sortez massivement, votez pour le changement et surtout le changement qualitatif. C'est important. Le changement qualitatif. Nous avons besoin d'une Assemblée nationale qui jouera pleinement son rôle. Nous avons besoin de députés qui connaissent leur rôle, qui connaissent leurs prérogatives et qui travailleront exclusivement pour les intérêts des populations. Je vous remercie.